mbokkente no di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm mu nekk ci cëy yàlla cëy noo yàlla mën a àtte ñaar ñu xeexul cëy yàlla lii benn xale bu jigéen la ndeysaan xale bu jigéen bi nee na papaam ak yaayam ay mbokk lañu ndeysaan nee na nag ñoom ñaar dañoo teeloon a sey ndax dañ ko nettali ni ko yaayam bi mu amee 13 ans la seyoon ak papaam neena na yaayam ak papaam nag seen ñaari papa yi ñoo bokkoon nee na ba tax ñu nekk ay mbokk ndeysaan nee na it ñu daldi sëy sëy bu rafet boo xamante ne dara ñaawul ndax nee na papaam dafa nekkoon ci benn entreprise fële ci Dakar di liggéey di leen toppatoo moom ak ay frère ak sœur am ndax nee na yàlla dogaloon na yaayam am juróom-ñaari doom ndeysaan nee ci noonu nag ànd bi rafetoon seen papa di liggéey di leen jàppale di leen taxawu ci seen njàng ak seen lép nee na daal jamono yooyu wax dëgg yàlla dara dara dara dara dara wu leen woon ndeysaan ma ne ko ci cey yàlla cey hmm, hmm. yàlla baax na ndeysaan nee na seen papa di toppatoo di leen jàppale ci seen étude lépp rek loo xam ne seen papa ndax salaire am dafa baaxoon mu leen di jàppale taxawu leen it ni parent di taxawoo njabootam nee na ñu dëkkee noonu dëkkee noonu rek ba benn jour rek seen papa xëy bett leen ak surprise mbokku internet di laaj leen ma surprise bi ndeysaan seen papa daal di takk ñaareel ma ne ko ci cey yàlla <laughs> ma ne ko ci cey bi mu takkee ñaareel nee na ñaareel bi quatre mois la def ak yaayam ci kër gi maanaam ñaareel bi bi mu sëysee quatre mois après ñaareel bi lëmbe kër gi jaxase kër gi mën mënee papa ji comme ni ma koy waxee parfois daf cee am góor ñoo xamante ne ñoom duñu góoru ñaari jabar góor goo xamante ne boo amee ñaare rek da ngay abandonné sa aawu góor googu yow góor nga mais doo góoru ñaari jabar yow góoru benn jabar nga moom nga mën a am différemment nag a góor boo xam ne day am quatre maanaam quatre problème mais da koy gérer parce que ku ne xam na ne jigéen ñi rek ay problème lañu mais da koy gérer ba kenn ku ne da lay téye nam la war a téye mais góor goo xam ne boo amee ñaaree rek yow sa foyer yow sa njab ki nga amal sett doom da nga koy abandonné kon yow waroo woon am ñaari jabar yow góoru benn jabar nga. nee na bi ñu nekkee 4 mois ci kër gi ñaareel bi tas kër gi mën-mënee papa ji ba génne yaayam kër gi daldi fase yaayam yaayam dem ma ne ko ci cëy yàlla cëy nee na bi yaay ji demee léegi kan moo ci des ñun sama yaay dem na mu téye ñu ne ñun duñu dem. ba pare bàyyi ñoog ñaareelam bi nee na ñaareelam bi comme ni mu tëggee ba sama yaay dem mu ñuy tëgg par kenn kenn par kenn kenn par kenn kenn ba ñun ñépp ñu dégager kër gi mu gé sam papa génn ñu ci biti des ak ñaareelam ba pare ne faax ñun mu fàtte ñu ñun juróom-ñaari bant yi mu am ak sama yaay ndeysaan ma ne ko ndeysaan te moom même bu leen jurul woon sax da leen a war a fat ndax ko moog sa yaay ay mbokk lañu daal àdduna bi metti na mais nag yàlla baax na ndeysaan nee na bi yaayam génnee ñoom it ñu topp ci benn benn benn benn nee ci diggante bi yaay ji am na jëkkër ndeysaan mais nee na jëkkëru yaay ji liggéeyam demewul noonu da doon taaba taaba mais jëkkëru yaay ji fexe na ba wutal yaay ji benn appartement nee appartement bi nag dafa xat nee yaay ji dëkk ci nee bi ci yaay ji dëkkee comme tànta ji da leen doon bule kenn par kenn nee na moom bi ko bi ko tànta ji waree bule mu génn nee na moom mi ngi amoon jamono yooyu treize ans ndeysaan treize ans la amoon ma ne ko cëy yàlla nee bi mu génnee nag mu dem ci appartement bi jëkkëru yaayam bi wutal yaayam nee na bi mu demee mu xool situation yi mu xam ne jëkkëru yaayam bi bëgg na téye yaayam ndax nag koo takk mu am juróom-ñaari bant nga ngay taaba taaba wut sa appartement bu xat mu ñëw juróom-ñaari bantam yépp ñëw fekk si ko nga daldi koy accepteel ci loolu loolu mooy yow bëgg nga ki ngay sëyal ndeysaan comme seen papa bi leen jur rejeté na leen yow nga accepté ko seen jëkkëru yaay boobu ku baax la ndeysaan nee na waaye man bi ma ñëwee am ma ñëw ci kër gi ma xool situation yi ma xam ne sama jëkkëru yaay ji bañul mais loxoom dafa jotul ginnaawam ndeysaan nee bu tayee kër gi neex bu subaa kër gi du neex nee na affaire yi daal di metti parfois sax ñuy toog duñu toogu nee na à l'âge de treize ans ma daal di fas jom ndeysaan nee na école tëj ma daal di dem wuti samay sase ndox génn comme soriñu woon tali may taxaw ci tali bi di jaay ndox ndeysaan ma ne ko cey yàlla billaay jom rekk ndeysaan li yi naan jom rekk jom ku ko amul doo dem hmm, billaay ku amul jom doo dem jom yàlla baax na ndeysaan nee na may jaay ndox di jaay ndox di jaay ndox nee na jamono yooyu nag maa ngi nekkoon kalaasu sem de laa doon def léegi bi may jaay ndox bi en classe de cm ci diggante bi école tëj kon ça veut que ci année scolaire bi da doon def jour yu mu jàngiwul mu jaay ndox nee su jaayee ndox ba nga xamante ne jaay na lu xaw a tane bénéfice luy dugg xaw na tane xam na ne lii bu ko yónneewee yaam ne ci toggu añ nee na mu woo benn rakkam jox ko li mu jot a jaay rakk ji daw yóbbul ko yaayam yaayam daaji ci nduggu ndeysaan ma ne ko cëy yàlla ñu sama jëkkëru yaay bi bañul de ndax su demee dëkk bi neex rek day ñëw indi mais su demee dëkk bi neexul aussi da ci jour boobu damay gaawantu dem lu ma jaay ma yónnee ko sama yaay mu taal après tout samay rakk la te moom waa ji mi ngi nangoo dundal man ak samay rakk ndeysaan ma ne ko cëy yàlla yàlla dina ko fay ndeysaan nee na ma dëkkee noonu dëkkee noonu ba école tëj nee na ba école tëjee benn xaritam dëkkandoowam bi école tëjee moom dafa dem wuti liggéeyu jànk nee na bi mu wuti jee liggéeyu jànk nee na xale bi xarit dëkkandoowam boobu dem di liggéey nee di liggéey ba mu yàgg yaayam ne ko arrêté liggéey bi arrêté liggéey bi nee na dëkkandoom bi insisté insisté ne ko arrêté liggéey bi nee na bi ko yaay arrêté loo liggéey bi nag ndeysaan nee na dëkkandoo bi ñëw ci moom ndeysaan daane ko diw man de fi ma doon liggéeyee sama yaay daf ma tere liggéey bi wax naa ba sonn nee na ma du ma liggéey tey nga kaay ñëw jël nee na ma soxna Faatu ci noonu ma ànd ak sama xarit boobu mu yóbbu kër fam doon liggéeyee comme yaayam tere na ko comme pour man ma remplacer ko ndeysaan nee na ma dem bi ma demee nee ndaw si accepté comme que yaayam da ko tere ne ma mun naa laa jël nee na mu jël ma nee na ñu waxaale jamono yooyu ci jamono yooyu nee na ndaw si sept mille cinq cent la ko doon fay mu ne ko ci cëy yàlla liggéeyu sept mille cinq cent moom xanaa peut-être jamono yi dafa yàggoon sept mille cinq cent mënoon na faj dara mais vraiment liggéeyu sept mille cinq cent nag doy na waar ndeysaan nee na ñu daa mu ak ndaw si sept mille cinq cent ndeysaan franc CFA dundee yaakaar ne bu ko ndaw si fayee mu jël ko jox ko yaayam ñu dimbalee ko ci kër gi ma ne ko ci eskay ndeysaan non booy am nga jom nee nag yàlla baax na nee na ñu dëkkee noonu ba weer dee ndaw si war koo fay sept mille cinq cent yi hmm, hmm, hmm. yàlla baax na ndeysaan yàlla baax na nee na weer dee ndaw si war koo fay ndaw si di ko dawloo xoolal ma gii ñamee àq rek yow nga jël xale di ko fay 7500 man 7500 xaw ma yan 1900 la ko nit doon fayeeku mais man boog man je ne comprends pas léegi ba ci cinq 7500 yooyu sax nga koy dawloo mais yow kon loo doon jëlee jànk nag tëgg neexul nee na ndaw si di ko dawloo di ko dawloo di ko dawloo nee na mu laaj ndaw si ba sonn ndaw si joxu ko sept mille cinq cent yi nee ci diggante bi kuppe nañ leen fi courant mu bëgg ndaw si jox ko sept mille cinq cent yi pour mu dem jox ko jëkkëru yaay bi ñu fay ci courant nee na ndaw si fayu ko sept mille cinq cent yi di ko dawloo ni ko ci cëy yàlla ci noonu rekk nee mu sonn en tant que xale mu bàyyi ndaw si ak sept mille cinq cent yooyu xoolal ma lii rekk liggéeyloo doombu jàmbur mu am yaakaar ne 7500 yi ëpp ba tax mu bàyyi jaay ndoxam boo xam ne mi ngi ci doon gagné dépense ba yaayam mun koo dépensoo nga tëye ko un mois liggéeyloo ko ba mu sonn te da lay leer ne lam ko raxasloog lam ko baleloog lam ko def loo doo xam nu mu toll am na ñu ñeme àq Sénégal am na lu fi xewoon danga daan gis jéeg buy sëy këram su tilimee day wut su wutee jànk fóot lay njëkk a waxaaleeg yow amoon na fi man gis naa ñu ko def ay nit yu bëree bëri fóot lay njëkk a waxaaleeg yow nga d'accord ndax désespéré nga am fa ñetti fan mu juugal la yére billaahi boo fóotee ba paaseel ko ba mu jël ay yéreem ranger ko ci almuwaaram bu xëyee da lay tàppaas xeex te bu lay tàppaas xeex sàcc la lay jiiñ xam nga ko jiiñ sàcc bu dee gor la day mer baay mu bàyyi affaire bi jaare fa naax saay du la fay sax ñetti fan yaa ngi fa liggéeyee su loolu paasee mu defaat ko keneen di ko def ay nit di ko def ay nit ba benn jour dañ ko cee jàpp xoolal ma gii àq rek te lu bëri xewoon na fi au Sénégal nga liggéey loo nit 7500 munoo ko ko fay di ko dawloo ndeysaan ñu coupé leen courant ba mu mujj bàyyi la kook yow ci xale bu am 13 ans waaye ku ko fayul fii rek fay ko fee ndeysaan ma ne ko cëy yàlla nee na biñ leen coupé courant ndaw si fayu ko set 7500 yi nee na nag mu ñibbi nee na soxna Faatu affaire yi metti ñu coupé ñu courant suñu kër lëndëm bu guddee dañuy tëdd noonu ci lëndëm gi duñu gis neena teg ci kër gi dëgëra dëgëra dëgër bala ñoo lekk problème la neena na affaire yi metti waaye nee na soxna Faatu ñu gérer rek ndeysaan ma ne ko cëy yàlla baax na jamono yooyu seen papa mi ngeen ñaareelam di yaataa yumbe ma ne ko ca cëy yow mal yàlla baax na ndeysaan ñu ñu dëkkee noonu affaire yi di metti ñuy gérer ba mu yàgg yàlla daal di dogal taawu yaayam jigéen la mooy taaw bi moom du taaw nee na taaw bi def befem amul ma ne ko nag soxna si nan lay amee non seulement courant bi muy jàngee leçon rekk amu ko boole kook di xiif du gis lu mu lekk ndeysaan kooku bu defoon befem am wallahi ma xam ne jàmbaar la stress bi mu nekkee rek mënut a booleeg am befem ndeysaan cey yàlla nee na bi mu defee befem amul nee na mu daldi di bàyyi ndeysaan ma ne ko ci cey ci noonu nag yàlla dimbali ko mu def benn formation nee bi mu defee formation bi ba pare benn waay daa di koy jàppale yóbbu ko poor nee na bi ko waa ji jàppalee yóbbu ko poor mu nekk poor di fa def stage ndeysaan mu ne bi muy def port stage rek yàlla dimbali ko seen taaw taawu kër bi nee na mu xamante fa ak benn tubaab ndeysaan nee na tubaab bi daal di takk seen taaw bi nee na bi tubaab bi takkee seen taaw bi nee na affaire yi nag daal di tane situation yi xaw a changé ndeysaan ma ne ko est-ce que yàlla baax na de ndeysaan cey yàlla ne ci cey nee na situation yi changé parce que tubaab bi takk na seen taaw bi ndeysaan nee na mu tane situation yi changé nag cette fois-ci ñuy am lekk heure lépp grâce à tubaab bi nee na ñu dëkkee noonu dëkkee noonu ba moom ci boppam mu dem ba am 17 ans nee na bi mu amee 17 ans nee na mu daal di xamanteeg benn waay ndeysaan nee na waa ji commencé di génn moom ne ko da koo bëgg nee na muy génn waa ji nee na waa ji nekk nit koo xam ne nit ku calme nit ku teey nit koo xamante ne daal wonoon na ko mbëggeel won ko yërmande nee na waa ji génn moom génn bu neex a neex a neex boo xam ne amul dara loo xam ne dépassé na les limites nee na génn naag waa ji musul gis waa ji mer nee na même su waa ji meree aussi waa du ko woon mer bi ndeysaan nee na ma ma daal di am confiance nee na parfois waa ji man ak moom dañuy ànd resto bu ñu àndee resto toog waxtaan cons pare mu yóbbu ma ma ñibbi nee na ma jamono yooyu portable mun naa ne koñ ba ñu dëkkoon maa ko fa njëkk a am waa ji jëndal ma portable di ma may xaalis maanaam lépp lu xewoon daal ci samay moroom man maa ko doon njëkk a am grâce à waa ji mu ne ma kon soxna Fatou waa jooju damay am ci moom confiance ma ne ko bien sûr te nee na aussi waa ji musu koo woon même su waa ji meree sax moom waa ji da koy nëbbu mer bi bokk nee na mu dëkkee noonu ak waa ji ñuy génn di génn pendant sept ans ma ko chet yàgg ngeen de ca yàlla nee bi ñu génnee pendant sept ans nee na waa ji décidé benn jour ne ko dama lay takk nee na bi waa ji ne da koy takk après waa ji ñëw waxtaan ak ay parents wam dig leen ne da koy takk nee na première waxtaan bi nee na après parents yi jox ne waa ji ñu lay déglu nee na ñu toogaat lu yàgg waa ji waxaat waxi takk nee na cette fois ci nag waa ji ñëw ba toog ak ay parents wam encore waxtaan ak ñoom ne leen dama koy takk dal di expliquer lépp loo xamante ne dafa war a dem ci takk nee na sama ñoom yaay accepté ba pare d'accord ak moom pour mu ñëw rekk yónnee ñu may ma ko nee na soxna diggante bi ko sama parents yi toogee di xaar pour mu yónnee ñu may ma ko nee na benn jour ma xëy rek sama copain bi ci boppam jëkkëru magam bu jigéen woo ma téléphone nena jëkkëru mag ji woo ko nee na mu wuyu nee jëkkëru mag ji ne ko diw nee na daf lay takk waaye diw mënulaa takk ndax diw day tabax sànce pareegul kon mënul jël di la takk te sànceem bi pareegul nee bi ko jëkkëru sëru copain bi waxee lool nag affaire bi metti ko non seulement man li ma jaaxal moom jëkkëru sëru waa la moom lan moo ci yoonam ci ci relation waa ji ah man de tey laa jommi nee na mu coupé mu daal di woo copain bi ne ko yow sa jëkkëru sër bi woo na ma nee na yow dooma takk parce que da ngay tabax sànce te bala ngaa tali takk jabar nga tabax sa sànce bi ba pare ma ne ko ci eskay nee na waa ji ni ko diw dafa ma yeb diw lan moo ci yoonam ci sama takk ak kan moo ko wax man damay tabax sànce ba muy lijjanti damay tabax sànce bi ba pare doog a takk diw waxul dëgg te moom sax du moom moo may décideel ndax dama lay takk wala duma la takk ma ne ko dëggit ndaat saay ca yàlla nee na ñu jàpp loolu waa ji ñëwaat fa rassuré ay parents wam ne diw yoonam nekku ci man maa bëgg man maay takk kon diw yoonam nekku ci nee na soxna faato ñu toogaat di xaar waa ji nee na koy xaar di ko xaar ba benn jour rek encore waa ji woo ma téléphone cette fois-ci sama copin bi en personne moo ma woo téléphone ndeysaan nee na ko woowee fekk waa ji da koo dénkoon benn saak nee na waa woo ko téléphone ne ko dama bëgg nga ñëw suñu kër nga indil ma saak bi ma la dénkoon ndeysaan ma ne ko ci cëy yàlla nee na bi mu jëlee saag bi nee na ma soxna Faatu may dem nag yóbbul sama copain bi saak bi nee na ma defaru comme d'habitude ndeysaan ma ne ko noonu la jigéen buy dem ci ku mu bëgg moom lu ne dina ci dugg nee na ma defaroo defaru ba mel ni per bu yàlla yàbbi ndeysaan nee na jël saag bi wutali kër waa ji pour yóbbul ko saag bi nee na soxna Fatou bi ma demee di yóbbu saag bi damaa tëll ci bopp koñ bi rek seen waa ji taxaw ci buntu kër gi seen buntu kër taxaw nee na ma dox egsi bi ma egsee pour jox ko saag bi nee na waa ji bloqué ma ci buntu kër gi nanguwul ma dugg seen biir kër nee na ma ba ma bloqué ci buntu kër bi ma jox ko saag bi ba pare nee na mu jël saag bi mbokku internet di déglu leen waa ji li mu wax xale bu jigéen bi ma ne ko chët tët tët tët doy na waar de mais nag yàlla baax na ndey saam ndaw si nee na mu jël saag bi rek ni ko xam nga lan la sëy bi annulé naa ko mënatuma laa takk sëy bi mënul nekk ndaw si nee na ma ne ko yow lan mooy sëy bi mënul nekk yow nga ñëw waxtaan ak samay parents ba ñu toog di la xaar nga ne sëy bi mënul nekk wax ma lan moo tax sëy bi mënul nekk nee na waa ji ne ko mënul nekk mënul nekk point nee na waa ji jël saag bi dugg seen biir kër ba pare delloo buntu kër gi tëj ne ko ci buntu kër gi moom kese nee na soxna Faatu fi ma taxaw rekk ma commencé miir ndeysaan nee sama xol bi nag mel ni paaka lañ ci jam ma ne ko billaay yaayee ndeysaan ci yàlla cey ñene ma daal di dox jubali taliba nee na benn njaga njaay romb ma rek nee na ma ëpp njaga njaay bi dugg nee ba ma duggee ci photo yu njaga njaay bi laa tëdd ndax xol buy metti ndeysaan ma ne ko cëy yàlla nee na ma tëdd ci njaga njaay bi sama xol bi di metti may miir mais yàlla jàppale ma ba ma egg suñu biir kër nee na ma egg di nëbb suñu waa kër li ma waa ji wax nee na ma dugg ci néeg bi sama xol bi di metti di metti mais nee na ba tey waxuma suñu waa kër li ma waa ji wax ndeysaan nee na ma géré ko rek nee na dem nañu sax ba benn instant suñu waa kër gisatuñu waa ji di ma ko laaj nee na ma ne leen dañoo bàyyante tout court mais leeraluma leen dara dara dara dama mujje bàyyi mu sedd rek ndeysaan ci yàlla nee na ci noonu nag soxna faatu ma bësanteeg sama xol bàyyi lépp ci loxo yàlla comme moom ma génnoon ak man wax dëgg yàlla toppatoo ma jàppale ma xëy ba un bon jour ne ma sëy bi mënatul a nekk ba pare abandonné ma seen buntu kër nee na ma jàpp ci yàlla bàyyi mu sedd ndeysaan nee na ma dëkke noonu dëkkee souffrance dëkkee souffrance ba benn jour nee na may dem marché di nduggi nee na ma dajeek benn xale bu jigéen boo xam ne moo waa ji ñoo bokkoon kër nee na xale bu jigéen bi gis ma rek woo ma ne ma diw diw nee na ma taxaw mun ñu nuyante jàmm sante nee na xale bu jigéen bi ne ko waaye yow yëg nga ne diw takk na jabar samedi bee paase xoolal ma lii rek kii tamit moo tax la de te xam na ne da ngeen doon génn xanaa lii mooy jekkale nit ndeysaan am na ñoo xamante ne dañoo mën a joxe bomb boo xam ne mun na yow boo ko waxoon loolu mu daanu ci marché bi dee doo rey doomu jàmbur nee bi ko kooku waxee loolu nee na xol bi encore mel ni dañ cee jàmpaaka ndeysaan nee na mu ne ko yëwuma ko mais xale bu jigéen bi ku am dal la ndeysaan nee na mu ne ko mariage bi samedi bii di ñëw la keroog samedi bee paase takk gi rek lañ def ñëwal ñu dem ci mariage bi xam nga kooku day ñaawle kooku dalay ñaawal nee bi ko kooku ne ñëwal ñu dem nee na mu ne ko noo maa dem ndeysaan nee ma daal di eggale sama ndugg jël sama ndugg ñibbi suñu kër nee na ma egg teg ndugg bi dugg ci néeg bi nee na soxna Faatu dama jooya jooya jooy ba sonn ndeysaan ma ne ko billaay ku dëgër nga waaye bu doon keneen la muy ndugg dina ko jaxase bu waree jënd bisaab ah, jaxato lay jënd su waree jënd jën suppame lay jënd waaye yow jàmbaar nga ndeysaan nee na ma jooy ba sonn mais nag waxuma suñu waa kër dara ndeysaan ci yàlla ci cay nee na ci diggante bi nag ñun ñu déménager mais bi ñu déménager cinq ans après je ça veut dire que waa ji takk na jabar cinq ans après moom ndaw si mu déménager ndekete ci koñ boo xam ne fala waa ji dëkk ak jabaram ma ne ko ci cey ci nee na cinq ans après muy dem ci benn fast food pour doon jënd lu mu lekk nee na moom daal day jéggi tali rekk jékki-jékki dégg ku koy woow nee na mu geesu ndekete waa ji la waa ko trahir dem takk jabar la nee mu ñëw wuyu ko fekk waa ji toog ak jabaram ba tey di ko këliwaate nee bi mu ñëwee waa ji nuyu ko mu fay ko nee na waa ji ne ko soxna saa ngi nii nee na mu nuyonteeg jabaru waa ji après nee na mu avancé dem ma ne ko xoolal ma bii ñaaw la rek hmm. ay yàlla baax na ndeysaan nee na mu dem léegi bi mu demee nee na ci diggante bi encore ñu déménagé waat parce que nee na yaay ji dafa jëndoon benn kër ndeysaan nee na yaay ji jënd na kër gi defar na kër gi ba mu baax ci benn cité mais yaay ji dafa mujjee génn àddina ndeysaan nee na bi yaay ji génnee àddina nag moom mu nekk ci këru yaayam boobu mais yàlla dogal na am na jëkkër mais jëkkër ji mi ngi bitim réew moom xale bu jigéen boobu waaj trahir yaayam am na fi kër ça veut dire que seen situation changé na ba yaay ji jënd fi kër ba tabax ko après yaay ji génn àddina moom mu dëkk ca kër ga am na boroom kër mais boroom kër bi mi ngi bitim réew ndeysaan nena mu dëkk ca kër ga dëkk ca kër ga nee na dix ans après dix ans après nee na mu xëy benn jour rek toog seen biir kër mooy kër gi nga xam ne yaayam moo ko jëndoon te yaay ji génn na àddina nee na mu jékki-jékki rek benn oto gaare ci buntu kër gi ndeysaan daal di ñëw daal di sone ma ne ko ndeysaan gis ngeen seen vie changé de moo tax nit dara bum la jaral découragé ndeysaan nee na bi waa ji sonee mu ubbi nee na ba mu ubbee mbokku internet di laaj leen ma kan moo sone buntu kër xale bu jigéen bi te nee na moom li ko jaaxal nan la waa ji def ba xam fi ñu dëkk parce que fa ñu fa ñu am kër après dafa soree tellement ak koñ ba ñu dëkkoon ak koñ ba ko waa ji woowee di ko présenté jabaram te loolu am na dix ans après ma ko xamoo ku bëgg a wër dina la jaral lu ne ndeysaan nee na mu ubbi rek muy waaji ndeysaan chet tët tët tët waaji nuyu ko mu jàmma santeeg waaji nee na waaji ne ko diw nee na mu wuyu mu ne ko diw baal ma àq mu ne ko ndeysaan cey yàlla mu ne ko ci cey nee waaji ni ko nee na moom sax moo njëkk a tontu waa ji mu ne waa ji yow ban àq nga ma ameel man ameloo ma àq de yow pour affaire li ma fi bàyyi dem takki jabar nee na waa ji ne ko waaw mu ne ko loolu booba laa ko fàtte ma ne ko o oh, grandeur billaay wallaay nee na waa ji ni ko ameel naa la àq kay ndax li ma la def moo tax am naa quinze ans de mariage ba léegi awma doom ma ne ko ci cëy yàlla nee na waa ji ni ko damay dem sama ay kër xarit sama xarit yi seen doomi di sote seen kaw naan leen papa papa papa nee na sama xol bi di metti ndax man ba tey déggaguma papa ndeysaan na ko ci cey yàlla cey ndaw si nee na lii mooy histoire am waa ji ñëw na baalu ko àq ndax mu baal ko walla mu bañ koo baal ak lu mu ko war a tontu mbokk internet yi yéen la koy laaj ndax nag wax dëgg fa yàlla lii de mooy àtte yàlla bu mel ni midi àtte yàlla tas yaakaar yow it yàlla tas sa yaakaar xam nga ne 15 ans de mariage amoo doom say moroom yëpp ngay dégg lool xam nga dégg ay papa ak mama dafa neex de billaay dafa neex nag sa doom woola nela yaay walla mu ne la papa loolu dafa neex de loolu ku ko amul nga wax ko a nga bañ koo wax dafa metti yàlla nag moo koy nattu jaam mais nag su fekkee ne dangaa defoon nit lu metti ba yàlla na la loolu xamal ne yaako liggéey ndeysaan nee na waa ji ne ko man leer na ma ne su ma la takkoon ba tey heure bi maa ngi dégg papa ndeysaan mais nag c'est trop bàyyi ba jaan romb la nga topp ci watit bi man loolu laa mënul comprendre faiblesse it weesuwul nga génn ak nit pendant sept ans sa jëkkëru sër naan la ay waroo takk bay osé di woon ndaw si naan du la takk ndax dafa nekk ci sànce ngay nangu ba tey conséquences yi ngay dund sa jëkkëru sër boobu du moom moo la koy dundule liy metti yow rek yaa koy yëg mais am na yoo xamante ne nit du ko ñàkkaale fayda ndax lii metti ci yow nit ki mënulaa bëgg ba ni muy mettee ci yow mu mettee ko noonu ci xolam munul ne sa jëkkëru sër boobu amaana ñu ngi koy woowee papa sa sœur bi ñu koy woowee ma maman ñuy ànd ak seeni doom te bala nga woon a mere sa bopp nga yónni ci seen benn doom yi ñu def la dara nga dóor leen billaahi boo leen dóoree di nga xam ne lépp dëgg la ñoom ñu la xañoon ki nga bëgg ñoo naan la juraluñ la koy dóor mais lan moo tax man man daal nit ñi man yàlla baax na boo ko yenteenoo di affaire baa ngi noonu vraiment justice divine baa ngi nii moo tax li may wax rek ku ragalul yàlla billaahi dangaa ñàkk jom yàlla chaque jour mu won ñu boppam ñun nag ñoo fi nekk di def lu ñuy neex moom benn benn ngoontam rek xejul ci ñun bu ñu wonee boppam rek ñu jaaxle yàlla ñu yàlla dolli sutura te musal ñu ci ay workat ay nit ñoo xam ne lu ñu wax du dëgg nekk ay naafeek yàlla nañ ci yàlla musal ay ca mi ngi mbokk internet yi maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax li moo nekkoon histoire ndaw si histoire bu triste ndeysaan yàlla na ko yàlla jàppale bàyyi koog borom këram boobu nekk bitim réew te nag soxna si jàppal sa sëy boobu yàlla baax na man warkat moom ku la war benn yoon du hésité pour waraat la man daal loolu laa lay wax warkal daat warkat la day reste warkat jusqu'à la fin de sa vie warkat lay mës a doon man daal loolu laa lay wax ay ca mi ngi noonu maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di nuyu suñu DG Sey Latir di ko jaajëfal bu baax a baax nuyu Kanasatu la coréenne moo nekkoon na ci caméra bi ah satu na moon naa la de la coréenne ziar naa la bu baax a baax di nuyu ki nga xam ne moo di Bas Filiperi Bas maa ngi koy ziar bu baax a baax semis bu am solo bi moo ma si génnewaat ma koy nuyu bu baax a baax ku ko bëgg a woo rek mun nga ko woo ci 78. 635 41 80 bu ko defee bas dina la jaay lu am solo macha allah nee na ma faatu merci publicité yi am na solo ndax ñu ngi may woowee partout di jënd si yére yi ma ne ko macha allah kontaan naa ci loolu ndax nag borom baax nga yàlla na yàlla yokku ay ca nag di leen wax ne nag bientôt ce sera mon anniversaire gars yi na ngeen ko préparé de ci mars bi lay doon dama koy féete ay ca mi ngi noonu maa leen di ziar bu baax a baax di leen joxaat dig daje ci yeneen i nettali d'ici programme Thiès Info ñu daal koy terminer ak suñu kaasu café